nga xam ni moom lañu nekk euh, ñett ba ñeenti weer ba léegi ni corona bi ak euh, bu fi bu fi bu fi bu fi ni ni mu nekkee ñu nar a dëkk ak moom fa fan la ñu jëm fan la ñu jëm ak moom ak naka lañ fay jëm ak corona boobu ngir waxtaanee ko ñu ngi fekk conseiller ministre de la santé Saliou Faye Daaf lay wuyoo Saliou fay Daaf ñu ngi lay nuyu. di nuyu gars yi ci plateau bi yëpp. Mhm. alors euh, euh, Amadou Ba it administrateur hospitalier la enseignant day jàngale ancien directeur hopital mhm. am na solo lool ñu ànd ak yéen ci waxtaan wi ndax euh, fi ñu bëgg dem. très rapidement xëy na commentaire les chiffres du jour wala ñu dugg directement ci waxtaan bi ni ñu wax ak li ñu dëgmal. buuba yow laay njëkk paas euh, ndax yaa gën a ragal xam nga li tax tey moom yaa yaa gën a ragal corona jox nga ma bële passé bii paa joxal ma bii yow laay njëkk jox xam nga li tax yaa fi ah. gën a ragal corona ah. mais non yaa ngi invité yaa ngi invité kañ ay ay ay kilifa yaa ngi yaa ngi yaa ngi gën a ragal yaa gën a ragal ah. voilà voilà léegi nag yaa ngi doog a tontu paas nga alors euh, Saliou Saliou Faye Daaf tey euh, jamono ji bu ñu doon def taxaw seetlu ci xeexu corona bi ah yéen ñi nga xam ni yéen a wër ministre beek yooyu jamono jii ñu toll ban jàngat ngeen ciy def diggante ñi nga xam ni feebar bi ñi ngi koy wàllante waaye it ñi ngi ciy wér dafa mel ni dafa am ñaari gis-gis yu waroo naan eh, li ci wér fan yi bëri na ci ay bés bi naam mais ñi ñuy wàllante it ak wàllante communautaire bi muy gis-gis bu waroo ndax yow da nga ci am yaakaar ni ñu ngi def ay jéego positivement wala war nañ ci def nànk tey ci bismillah waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaar di leen sant yéen ñëpp gëj naa ci kër gi nag yàgg na mais tey dama fi ñëw teew en tant que conseiller ministre Abdoulaye Diouf Sarr ci Covid bi parce que il m'a rappelé ma toog à ses côtés pour ànd ak moom sur euh, li nga xam ne moom la ñuy def boobu ba léegi yàlla nag dimbali na ma ba depuis le 4 mars maa ngi ànd ak moom ci liggéey bi di fekk ay jataay yu bari yoo xam ne mi ngi koy def mais aussi di ànd ak moom fu bari aussi ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def peut-être que xanaa li may wax rek ci épidémie bi mooy épidémie bi dañ koy diviser ci ñetti pàcc. Hmm. benn bi mooy préparation bi cest à diir depuis janvier li yi di def beneen bi topp mooy la détection c'est-à-dire bis bi ñu njëkkee gis ne yëf yaa ngi nii beneen bi ci topp mooy prise en charge daanaka nan la ñuy jëlee malade yi pour ñu mën a faju pour mën a dem. li ci bala ma ci sori sax foofu damay njëkk rendre hommage à tout le personnel de santé ñëpp li may wax ci santé rek dama naan c'est un tout cohérent c'est-à-dire amul diw walla diw ministre bi ba ci dernière personne bi tëj buntu hôpital bi wala buntu kaas bi ñëpp ci benn saaku ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp mm-hmm. Mm-hmm. parce que bu leen fàtte ni aussi bi ñu déparé ba léegi am nañu téeméeri liggéeykat ak fanweer ak juróom benn yu liggéey yu feebar bi daal donc ce qui implique mi ñuy faagaagal ñun tamit mais ci biir loolu aussi ñooñu ñii soit dañu nekk ci ay poste wala ay centre de santé mais amul ci ñu mu dal sax kenn ku nekk ci centre de traitement yi donc loolu moo tax ñu renforcer suñu jàppale ci zone yooyu pour que ñu mën a taxawu liggéeykat yi mais ci biir loolu aussi dañu gis ne fii ñu toll ci xeex bi dafa am ay stratégie yu bees yuy dégagé wu hmm. daanaka ñu bëgg a jógaat gën a taxaw jegewaat population bi parce que xam nga su fekkee dañu jël daal décision présidentielle dafa am ñetti considération dafa am euh, social am économique aussi am sanitaire parce que li jëm ci wàllu paj mi fokk ñu koy def mais aussi bu ñu fàtte ni dañu nekk ci dëkk boo xam ne ñëpp yemuñu doole ñëpp yemuñu doole am na tey ñoo xam ne mën nañu tëdd six mois seen kër du ñu génn te lu ñu bëgg mu fekk leen fa mais am na ñoo xam ne suñu jógul tey wuti ñeenti téeméer wala juróomi téeméer kër ga duñu lekk donc ñu def genre semi déconfinement donc loolu tamit dinañu ci indi ay waxtaan ci biir waxtu waxtaan wi parce que dañu ñëw pour ku nekk xam ni rôle bi nga ci war a jouer ci sa wàllu gox ci sa wàllu kër ba ci say parent say doom sa soxna ak yëpp ñu xam la gravité de la maladie te ñun suñu borom dimbali nañu tey ba fi ñu toll ci taux de mortalité kenn bëggul kenn faatu mais c'est acceptable par rapport fi ñuy ak li ñuy dégg li xew ci yeneen dëkk yi moo tax ministre de la santé et de l'action sociale bi ñu déparé ba léegi dañu ne woon benn centre de traitement lañ am bu am fukki lal ak ñaar extensible tey ñu ngi presque ci fanweer ak ñett yoo xamante ne bii bu ci nekk nit tëdd na fa ba ci juróom-ñeent yi mujj ci biir fanweer ak ñett yooyu mooy bi ñuy wax sur euh, la prise charge extra hospitalière c'est-à-dire ñi nga xam ne dañ leen di jël ci yeneen i béréb yoo xam ne du hôpital waaye dina am waa kër docteur yoo xam ne dinañu fa nekk ngir mën a taxawu leen ci li ñu leen di xool seen traitement yi donc ce qui implique liggéey baa ngi fi du jeex moo tax ñu soxla ñëpp pour ñëpp jàpp ci parce que nag dëkk bu tollee fenn fi am naa yaakaar ne li ñu war a njëkk a def mooy lii ñu woote woon ci unité bi li tax tey ñun ñi ñëpp ñu soli masque dañ fi daan toog te kenn sol masque dañ fi daan toog di accoladante dañ fi daan toog di demee xew tey yooyu yëpp awul le monde est à l'arrêt le monde est à l'arrêt donc Sénégal yàlla dimbal nañu ba fii ñu toll ñu ngi def ay jéego yu mag a mag a mag yoo xamante ne bii wax dëgg yàlla bu ñu defee évaluation bi ci wàllu fi ñu toll rek nga xool tey xam ni am nañu nit ñuy feebar am na ñu ñuy wér am na ñuy faatu mm-hmm. mais tam aussi ñi ñuy testé ñëpp bu ñu leen xoolee ci boobaak léegi presque ñi ngi yegg ci presque léegi ñu yegg soixante mille yoo xam ne xool nañ leen saytu leen ñi ci am jàngoro bi yëpp ba ba ñu départ léegi nekk ci ñeenti junneeg lu topp ñu faj ci presque ñetti junni kon am naa yàq yaakaar ni ñu ngi ci liggéey bi mais nag ba fi ñu toog. am na junni Saliou nga baal ma soixante mille six seize million du. du xam nga loolu li ko indi li ko indi mooy dafa amoon ñetti ñetti wàll. dañu ne woon feebar bi dafa am lu ñu tuddee les contacts. am les cas importés am les cas communautaires. dama ni tax yow mii kenn non xam nga yow kenn testé wu la yow kenn wu la. Ah, man kenn testé wu ma. mais tey su ma dëkkoon na ku ko am. dañ may confiné loon loolu lañ doon xaar. waaw. Ah. test aléatoire sax au moins. waaw mais non attends aussi xam nga man dama ne on a besoin de tout le monde. tey xam nga test massif am na. <laughs> Ah test pour tout le monde obligatoire am na dëkk yu mu am. mais mënaguñ ko am ñun aussi. dañ ko de xam nga tamit waxtaan wax dëgg ci la ci la bokk. man dama la ne li ñu testee góom ci li ñu gis ci biir cas communautaire. Mm. cas cas contact. ak cas importé. Mm-hmm. daanaka yegg nañ ci soixante mille daanaka. gis nañu ci li ñu ci gis. ñi ngi leen di jàppale ñi ngi wér di dem mais aussi mi ngi ci am ñuy yàlla di jël seeni mm-hmm. bakket donc je crois que bu ñu tollee foofu aussi ci biir waxtaan wi dinañ gën a duggaat ci biir gën leen expliquer matuwaay yu ñu jël ba nga xam ne tey ñu ngi ci presque mille six cent et quelques personnes yoo xam ne ñu ngi tëdd mais yàlla dimbali nañu aussi ba on a près de mille sept cent trente sept lits mm-hmm. donc ñun ñu ngi def suñu liggéey ci gàttal loolu laa bëggoon ubbee ñu continué wax alors euh, Amadou Ba administrateur hospitalier ne woon nga directeur euh, hôpital tamit euh, sa jàngat taxaw seetlu ci jamono ñu ñu toll feebaru corona bi fii ci Sénégal. merci beaucoup Abdoulaye di remercier véritablement ñi nekk ci table bi yëpp autour de la table man nag dama àndul ak Saliou Faye daaf li mu wax. Mm. parce que feebar bi. Mm. luy gën a daw muy gën a yokk mm-hmm. situation bi di gën garaaw muy doon également une préoccupation de tout le monde boo doon xool léegi presque li mu wax léegi nu somme à quatre mille huit cent presque cinq mille cas yoo xamante ne ay positif lañu. précisément ci jamono gi quatre mille huit cent cinquante et un cas. Et là, je précise que ce n'est pas l'administrateur hospitalier qui parle, mmh. mais c'est surtout le technicien du génie sanitaire. Mmh. cest à sama xam-xam dafa màcc ci génie sanitaire c'est ça ma, fon ma formation fondamentale. Mmh. génie sanitaire génie mhm. mbir mi bi muy ñëw ci Sénégal ba léegi. Mhm. soo xoolee presque danoo lajj à tous les niveaux. suñu lajjul loon au départ. Mhm. mënoon nañ. retardé même la premier cas bi dugg ci Sénégal yéen ngi fàttaliku defe naa fii la woon di ngeen di wax ak ay autorités ministère la santé ngeen leen yan mesure ngeen jël. Mhm. pour éviter la coronavirus mu dugg Sénégal. mais voilà mais tontu bu simple la joxe parce que dafa ne am nan ay thermoflash au niveau de l'aéroport boobu man la leen woon on avait un bon dispositif sanitaire un très bon dispositif sanitaire mais c'est un dispositif sanitaire qui ne fonctionne pas parce que thermoflash rek doyul et deux jours après pratiquement le premier cas dugg après combien de fois kii dinañ cas communautaire cas contact wala cas importe alors que yëpp cas la rek en contact avec le germe germe bi mu ngi sa biir yaram yaa ngi développé feebar bi wala développé woo feebar bi léegi nag soo xoolee man am na benn kii bu ma def léegi gis nga nous sommes au centième jour aujourd'hui jour pour jour nous sommes au centième jour Covid 19 bi mu duggee Sénégal ak tey. Hmm. ma sende ko ci ñetti pàcc. Hmm. gis nga premier pàcc bi. du 2 mars au 20 mai c'est 77 jours gis nga 77 jours yooyu on avait un cumul de 2714 cas soit 35 cas par jour bi ñu ñëwee ci le 21 mai au 31 au 31 mai <coughs> j'allais dire juin on a eu 11 gis nga ci 11 jours yooyu. Hmm. on a eu 931 cas en en en 11 jours donc. affaire bi dafa mai au 31 mai. Euh, au 31 euh, mai non ju ju euh, ah. juin ju. non juin eggaguñ 31 le 11 wala le 12 tere le 12. non eggaguñ. 21 mai. au 31 mai au 31. ba 31 mai voilà. voilà léegi la troisième période. Mhm. c' est du 1er juin au 12 juin c' est à dire aujourd'hui nous avons 12 jours. ci 12 jours yooyu on a 1207 cas donc presque feebar la boo xamante ne bii yàgg naa ko wax amul tànku ginnaaw mais tànku kanam rek mm. soo xoolee les cas graves mm. première période bi en 77 jours on avait 9 cas en 77 jours on a eu 9 en jours on a eu 30 décès en 77 jours, on a eu 1186 cas, soit 15 cas par jour. Mais aujourd'hui, ci 12 derniers jours yi, nous sommes à 9 cas graves supplémentaires. Dans la deuxième période, on était à 5 cas supplémentaires et avec 1260 cas seulement en réduction. mooy ñooñu naan les cas traités. donc soo jëlee tableau bi affaire feebar bi day day évoluer en hausse suy évoluer en hausse nag da ngay naan feebar bi jógee gu fi d'ailleurs les gens même de pic mais fii su fekkente ne di wax dañuy pic mais dañuy naan ci ban paramètre lay doon pic bi ci nombre de cas yi la wala pic bi ci nombre de décès yi la wala pic bi ci nombre de cas traités yi wala pic bi ci nombre de cas en traitement yi la paramètre bu nekk day am tigam. qu'est-ce qu'il fallait faire pour ne pas. voilà je je vais y arriver. Hmm? parce que nous on a une contrainte de temps. beneen bi mooy temps bi ñu am la. par exemple. Euh, ayca bismillah. voilà par exemple. Euh, je disais que première faille bi c'est au niveau de l'introduction du virus mais deuxième faille bi c'est au niveau de la stratégie on court plus derrière la maladie, mais on n'a pas essayé de d'arrêter la maladie foofu laay wax ne dañuy daw ginnaaw feebar bi. Hmm. mais mbas mi ci boppam pratiquement dañ ko dañ ko bàyyi de côté parce que il fallait développer simplement des des stratégies. Mm. pour rompre la chaîne de transmission puisque nous sommes en épidémie quand nous sommes dans une maladie transmissible surtout en épidémie. Mm -hmm. il faut essayer de rompre la transmission te foofu Moussa Seydi wax na ko waxaat mais c'est que les gens peut-être ne l'écoutent pas mhm. mooy bi muy naan on avait douze lits et si on dépasse justement cette étape on risque justement une catastrophe bi ñu ko weesoo ba am 100 cas mhm. vous vous rappelez également dafa ne woon suñu weesoo fii ce sera l'hécatombe mhm. et avant dernière intervention am na fu mu waxee également loo xam ne lu lu nopp mën a nangu la. Mm-hmm. mooy bi muy naan cette maladie là épidémie bi. Mm-hmm. c'est pas seulement l'aspect traitement qui est la solution mais la solution c'est surtout la prévention mais nous ñëpp nous sommes là. est-ce que vous avez senti mm-hmm. véritablement. l'aspect prévention et l'aspect prophylaxe. vrai problème la poser effectivement ci bu ma comprendre ni mu wax ñun dañ topp ci paj mi paj mi ba fàtte ba fàtte épidémie bi ci boppam ni ñuy def ba dog ko xaaral benn laaj dab la bismillah man en fait su ma leen déggee ñoom ñaar ñu wax c'est le conseil du ministre et il parle de il a il fait génie sanitaire à professeur Seydi mm-hmm. te normalement si c'est le même c'est la même équipe voilà donc dama bëgg a laajte. Mhm. est-ce que il y a une un dysfonctionnement par rapport ak euh, li nga xam ni euh, médi volet médical bi mi ngi koy wax ak le ministère parce que c'est de normalement professeur Seydi il il fait partie de l'équipe du ministère non est-ce que ministère bi donc li ngay wax ni est-ce que ministre bi ak ministère de la santé ñi ngi déglu professeur Seydi wala ñaari yoon yu bokkul la pour ñu mën a xam nga lu ma a bëgg a wax ñu mën a avancer. Euh, foofu laa lay wax buuba y a entre le professeur Seydi et yaa y a d'autres professeurs autour de professeur Seydi, les Cheikh Tidiane Ndour, les Fatou Samba Ndiaye, les les professeurs Sylvie ñoom ñëpp c'est des infectiologues ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñu jàng day nag professeur Seydi mooy chef de service su maladie infectieuse ñooñu ñëpp ku ci nekk yor nga benn site yor ay malade di leen suivre ñoom ñëpp ñuy coordonner yëf yi Amadou am na droit c'est vrai su ma waxee mun ne ma d'accord ak yow man mais Amadou directeur d'hôpital nga woon moi je t'ai trouvé à Kolda boobu j'étais syndicaliste secrétaire général d'une organisation <laughs> te xam naa ni aussi tu as fait ton temps liggéey nga ba pare mais système bi soo nee dañu lajj depuis boobu man damay tiit li tax may tiit mooy lii ngay joxe comme statistique ñun dañ ko am mais boo waxee de telle date à telle date dañu am temps de ñun dañ ko am dañ ne la ñaata test la ñu réalisé ci an ci ci weer woowu mois de mars boobu ngay wax on a réalisé 1304 tests 1304 boo réalisé 1000 junni ak ñetti téeméer. ak ñeenti test est foofu la waxee. non si non attends maa ngi ñëw déet may leen ma rek Amadou agent de santé la may agent de santé. Hmm. te damaa bëgg ñu xam ne ñun li ñu teg fii du werante man li ma bëgg mooy. xam-xam bi mu am moom. Mm-hmm. mu indi ko ci système bi. ñu ànd liggéeyal réew mi moo gën muy wax ni système bii mu am te fekk ay collègue am ne fa di liggéey ñeenti weer ba am ci résultat bi ñu am dëkk ya am cent mille waxuñu loolu dëkk ya am cinquante mille morts ils n'ont pas dit ça ñun ñi ngi def suñu kémt lay kattan ci suñu réew. ànd koog suñu ay docteur ànd koog suñuy infirmier suñuy personnel ñëpp di liggéey donc même bu fekkee tey vous êtes à la retraite am na loo war a ñëwal sa bopp yow ba ministère dugg ñëw indi sa participation parce que loolu mooy man retraité naa comme yow mais dama ñëw indi sama participation ci li ma xam néew ma nag doo critiquer am am nga ci. mais Saliou dafa mën soldat la ñëw rek ne damay nekk ci wetu. non non non waxuma loolu les anciens mais xam nga les kër gi la jox lépp. et puis question bi du woon non du foofu mais y' a gis nga entre Seydi et les autres y' nit ñi ñooy xam nga Sénégal dañ nekk dëkk boo xam ne su kii bokkuñu sax la ñuy def. Seydi c'est le patron des maladies infectieuses. c'est le patron mais dama bëggoon glisser foofu rek benn benn secondes rek. dafa am benn philosophie bu ma am. Mhm. à tort ou à raison. Mhm. être dans une collaboration bu fekkee da ngeen xaritoo c'est oui mais vous n'êtes pas obligé d'être des amis je veux dire par là. non on n'est pas je veux dire par là il faut que mm. Sénégalais ñu ñu ñu changer. mentalité waaw parce que le ministre de la santé. il n'est pas obligé d'être l'ami du professeur Seydi. professeur Seydi n'est pas obligé d'être l'ami du ministre de la Santé. Ouais. Mais le ministre de la Santé a l'obligation de faire le travail pour lequel il est engagé. Oui. Seydi a l'obligation de, de, faire, faire le travail, travail, pour lequel il est engagé. C'est ce qui se passe. Entre amitié et qui, ça n'a rien à voir. Mais c'est ce qui il se passe. Il peut y avoir une. une, une... C'est ce qui se passe, Papis. Il y a aucun problème. Est-ce que je peux faire. waaw bu nekk stratégie dafa lajj kon non su nekk stratégie dafa lajj day départ depuis CNG ba depuis comité national ba lay départ. non fii gars yi ñu bëgg def ay xarit problème problème problème. may may leen Amadou Ba mu préciser voilà voilà. j'ai besoin de préciser ma pensée. ayca d'accord. je n'aurais même pas. wolof waruma woon sax citer ay tour mais dama bëggoon simplement étayer mais propos moo tax ma wax certaines déclaration mais su dul loolu du ma wax tour encore que waxuma fi ay jàppal bàyyil wala ay ñaar ñu jàppante wala jubóowul non non loolu xawma ko. diggante eh, ministre bi ak professeur bi wala yooyu man xawma ko mais li ma xam man nee naa leen tout à l'heure je parle en tant que personnel de santé et je parle également en tant que spécialiste en génie sanitaire ma jox leen ay aspect ma ne leen feebar bi day évoluer donc arrêté wul waruñu taxaw maintenant bombe pour nan alors on a fait des résultats wala yu ma alors que feebar bi day gën a continuer chaque jour muy gën a law moo tax j'ai juste donné des chiffres pour faire des comparaisons suivant des périodes bien déterminées donc dugguma ci ay polémique wala ñu mel mais dégguma la tamit nga joxe cumul des guerres yi. même si si jox nga cumul wala daf ma rëcc non non yëpp a ni cumul des guerres yi ngi ni. Mhm. tout est là c' est à dire que comme le temps presse. oui mais ko voilà non bëggoon na ko lépp a ngi ni. il faut aussi. voilà soo leen bëggee en fait il faut être juste avec. avec il faut être juste quand même. non la délivrance quand mhm. même de de de l' information. bu nga euh, Malal. en matière de d' épidémie. la maladie son traitement les cas guéris ak yooyu mm. importe peu xam nga ban moo am importance oui. comment rompre justement la chaîne de transmission et arrêter justement que les gens tombent malades waaw mais boo dul liggéey autour de ñan ñooy wér ñan la ñuy mais nan ngay demee ba xam ne nan ngay demee ba xam ne les indicateurs c'est pas normal ça non je suis pas d'accord Amadou gan d'accord la yow pas d'accord avec ça tu sais pourquoi yow d'accord parce que d'accord loog yow mënul nekk mënoo am 4851 cas positif am 3100 guéri ba pare taxaw naan fay déglu ko fay déglu ko c'est pas un bon indicateur de fay s'il te plaît déglu ko c'est pas des indicateurs si c'est des indicateurs je dis que ce n'est pas un bon indicateur c'est un indicateur de les gens prennent en compte parce que matière en matière d'épidémie en matière de santé publique. s'il te plaît ñu nga may ko boo duggee ci boo duggee ci toolu non boo duggee ci toolu mango. Mhm. toolu mango mhm. di nga am faay am sax bu dugg ci tool bi. Mhm. di lekk mango yi. ñuy wis ci mango yi ay poudre. ngay remarquer ni y a de mango yuy nëb. quand même il faut. il faut reconnaître que quand même. heureusement nga ne ni ngay ni mango bi am na solo. heureusement bi nga ne soo defee poudre affaire bi di euh, muy muy mais fii nag poudre bi moo amul. ah ok. Ah fii poudre bi amul. ok et j'ai parlé tantôt de stratégie. Mm-hmm. Mm-hmm. j'ai parlé tantôt de stratégie la stratégie ne consiste pas seulement. Mm-hmm. à traiter la maladie. nee naa leen en matière d'épidémie ce qui est important pour éviter justement que feebar bi di gën a bari di law mais fexeel bépp pexe boo xamante ne bi dina rompre la chaîne de transmission rompre la chaîne de transmission c'est à deux niveaux. mais j'ai une question. oui. Mais comme ça, ça bon, non, mais, non, mais comment, non, je veux dire, on est si à 4 mois de pandémie. Il n'y a pas de souci. Non, moi, je suis, non, tu veux parler. La parole, Charles, je la, si ça, si c'est pas clair, on, on pose des questions. Oui, mais, sinon, on va dans mais, mais, mais, mais, mais il exprime un besoin plus pressant que toi. De parce que thème bi ñu tegaloon ci deuxième kii bi et lii nekk di wax nii. c'est diamétralement. Ah d'accord, mais mais ce qu'ils disent aussi, c'est ce qu'ils disent est intéressant. c'est dama bëgg xam man ce qui m'étonne un peu quoi. li gan gi di wax c'est intéressant. je ne suis pas spécialiste mais comment se fait-il que li nga wax nii. tous les maires enfin tous ceux qui sont autour de la question amuñu préoccupation bu def ñu ni c'est ça qui m'étonne. Euh, hmm? se présenter est-ce que vous avez est-ce que vous avez constaté une chose. je veux vraiment comprendre. il faut d'abord ñu féliciter le travail personnel de santé bi parce que c'est difficile. Mhm. dans une situation d'un pays qu'on comprend qui est le Sénégal on n'est pas les plus riches on n'est pas les États-Unis duñu le préoccupation bi muy wax ça a été pensé stratégie am na moom dafa ne il faut rompre la chaîne de transmission. Mmh. mais Charles lan mooy rompre la chaîne de transmission il faut les mesures barrières. barrières il faut ko respecte un certain nombre de conditions bañ ko tegee ba ministère bi commencé am ay résultat am na fu chaîne wu de travail boobu rompre ba léegi chaîne de transmission bi di continuer mhm. soit on n'a pas eu assez de moyens et dañu décider à un moment ñu ubbi waat mooy mesure de ñu bàyyi waat délaissement yi nit ñi delluwaat ci seen activité normale et que la la maladie a repris depuis parce que depuis lors on mhm. voit que boo xoolee boo xoolee chaque jour résultat yi on est entre quatre-vingt-dix cent mhm. quatre-vingt-dix cent donc il y a un problème parce que mënuñu rendre chaîne de transmission bu muy wax on a eu une stratégie soit dañu amul moyen loolu laay laajte ndax amuñu moyen bu doy pour mën a poursuivre rombe de chaîne de transmission bi parce que tey quand tu reprends le transport quand on a voulu ouvrir les écoles lan moo xew on a eu 10 cas à Ziguinchor mm-hmm. xam nga kon la chaîne de transmission n'a pas été rompue il y a eu un problème on a laissé aujourd'hui boo demee plage xale yaa ngi koy delluwaat masque yi bàyyi nañ ko est-ce que tey on doit reprendre la stratégie pour mettre fin à la chaîne de transmission ou est-ce que parce que loolu mooy problème bi parce que depuis lors bu ñu xoolee chaque jour chaque jour c'est là où je c'est qu'on c'est que soo soo ma dégloo ma expliquer la xam nga vous avez bien fait de parler de mesures barrières mm. j'ai parlé de la défaillance de la stratégie ah, est-ce que mesures barrières yi rek doyoon na dafa am yeneen mm. mesures mon cher gis nga dama bëggoon dugg juste ci affaire communication bi mm. Euh, euh, euh, nu mu tëddee encore. Michel Diaw Diaw coupé ma. Mm. Ah. mais gis nga en dehors même de la communication. parce que il y a l'information certes moo xam ni bi nii da nga koy def au quotidien. Mm. mais il y une communication boo xamante ni bi aussi waroon nañu ko def pour au moins faire de la sensibilisation. pour que au moins il y un changement de comportement parce que yaa ngi wax mesure yaa ngi wax mesure barière léegi mesure barrière yooyu soo fa soo bëggoon mu efficace il fallait véritablement une bonne communication mais en dehors de la communication door dehors justement de ces mesures barrières su nekkee ci épidémie dafa am lu ñuy tuddee des mesures des kits d'assainissement des techniques d'assainissement mais en même temps de la prophylaxie la prophylaxie moom mooy indi lu ñuy par exemple. mooy faj bi. prophylaxie non non non prévention. foofu laa lay nan on a mis plus l'accent sur la maladie mais fàtte la nga xamante ni mooy épidémie bi. quelque part même j'ai dit on court derrière la maladie mais on n'a pas essayé d'arrêter euh, la maladie et au-delà également on a laissé le coronavirus presque circuler un peu partout et ça pose problème. donc mesure collective yooyu amul mesure prophylactique amul est-ce que vous avez senti le service d'hygiène et quand mais on a senti, senti le service d'hygiène non non non, non, contre, non je ne le service d'hygiène on l'a senti le colonel Moussa Dieng Sarr le communautaire Daf s'il te plaît Daf combat euh, leen ma s'il vous Charles Faye non dama ko doon wax ni engagement communautaire boobu li muy laaj moom non attends dama xam nga dafa am loo xam ne su ko waxee Ablaye dafa am loo xam su ko waxee ma bàyyi ko mu romb daaf dankay fanaanal nga tontu ko après même laissez-nous organiser aussi le débat à notre guise je pense que daaf bàyyi ñu ñu organiser s'il te plaît Ablaye merci beaucoup man nag xam nga non maa ngi yërëmee yam rek bu ñu waxee rek juwoo nañu problème show la show la juwoo nañu bàyyi rek waxtaan ni rek Charles jëlal grand grand grand grand bu baax la grand bu baax waaw. non affaire bi euh, pour man quoi euh, tey bu ñu xoolee bu baax c'est vrai que on a à peu près pour cent entre dix à pour cent bu ñu defee te même taux euh, boobu baaxul bu ne douze treize pour cent de positif. taux boobu sax baaxul. pourquoi non parce que si biir ñooñu. topp na ko wala non non non si biir dafa am ñoo xamante ne dañ leen testé mu am ñoo xamante ne dañu dañu dañu dañu guérir donc génnatul boo leen duggee si biir ça pose le taux. système donc c'est ça mais boo xoolee bu boo boo ko analyser autrement boo jëlee dix personnes nga testé dix personnes nga jël mille personnes nga testé nga am nga am boo doonoon quinze mille personnes vingt mille personnes peut-être que di nga am benn moyenne boo xamante ne mun na la may donc premier problème yi fa ne on a ouvert les vannes mais on n'a pas testé en masse hmm. première er-, oh, erreur la mënoo ventiler les gens te testé wuloo leen c'est ce qui a mené les médecins ñu arrêté affaire bi on a fait tout un projet le deux la veille on amène le président de la République maanaam moom la veille mu ne demain duñ dugg. les enseignants wala. les enseignants ouais, pour les enseignants. Hmm. mais erreur bu rëy hmm. ne peut pas faire faire ça y a pas une président de la République lan moo waral loolu. mais parce que man pour su ma su ma jàngat et je dis depuis le début nit ñi xam nañ ko duñu intubé nit ñi xam nañ ko depuis quand par contre dinañu oxygéné dalal jam sa pas longtemps lañ fa dem 200 lits 200 potentiels lits yoo xamante ne am na oxygénation parce que dafa am benn centrale oxygénation si ma si ma juumul c' est très récent ah. dalal jàmm est très récent. avec toute cette capacité c' est très récent 200 lits pourquoi pas avant. mais le vrai pour man problème bi neewu fo hmm. pour man problème bi on a eu trois mois cent cent deux jours mu am quarante cinq morts donc le problème pour moi devient les cas graves. Hmm. loolu mooy vrai problème bi tey Sénégal su ma gis mooy lan mooy que nit ñi bu ñu feebaree en général ñun comme on est dañuy feebar duñ ko gaaw hmm. mais si biir loolu ñu am ay comorbidité mun naa am diabète te xaw ma ko feebar bi ñëw. dugg ma man ma tardé wax feebar bi xawma que je suis diabétique quand je vais voir le médecin au bout de cinq jours dix jours c'est la catastrophe feebar bi yàq na lu muy yàq si biir mm. feebar bi yàq na donc pour wax dëgg yàlla une population jeune bu ñu xoolee rawut wax na ko ñëpp wax nañ ko am nañu capacité ak benn écosystème euh, écosystème bu favorable pourquoi ne pas inverser parce que pourquoi ma koy wax tey ñaata nit ñooy dee parce que opéré wu ñu leen crise cardiaque kii seen cœur il y en a beaucoup ah. y a 45 morts du Covid en trois en deux jours y a eu combien de morts de de crise cardiaque ñoo xamante ne jëluñu leen en charge. de diabète et donc vous imaginez que dañ jël suñu doole yëpp indi ko ci benn affaire yóbbu ko fii dans un centre qui a été financé par des étrangers mooy de cardiologie où on n'opère pas aujourd'hui attention y a des gens qui souffrent. donc quelle est la politique boo xamante ni ñun xam nañ ko feebar bi dina yokk de toute façon xam nañ ko par contre comme nu mu ko waxee ñaari je suis d' accord ak grand grand looy daal comment on peut voir et ça c' une réponse du président de la république moo yor réponse boobu le ministre quoi qu'on dise mm-hmm. c' pas lui qui a la réponse c' une réflexion mais de haut niveau boo xamante ne dañ koy indil ñu ne ko léegi les cas graves te yëpp la affaire bi lan la woon en fait dafa woon rek nos limites heureusement que lu dal tubaab bi daluñu parce que sinon ça va on mourrait hmm. par milliers des dizaines de milliers donc il faut des lits avec oxygène vous savez combien ça coûte mais DER am na leen hmm. du fi leen jox respirateur ça par contre ça me pose un problème les respirateurs on en a parlé depuis quand hmm. depuis le début oui le ministre était là docteur euh, Bousso était là il était avec c'était le 3 avril on a parlé des respirateurs premier essai deuxième essai troisième et puis on n'en parle plus c'est quoi validation lay xaar est-ce que on c'est bien une validation qu'ils attendent du ministère de de non damay poser la question ah damay poser la question c'est vous qui c'est vous qui validez donc ça veut dire que tey voilà loolu on l'a dit il y a deux mois tey kenn waxatu ko vous pensez que ñu ko liggéey bon voilà quoi c'est-à-dire voilà toutes les contradictions yoo xamante ne c'est là sur la table et qui amène à dire que moi je je, je rejoins monsieur Ba parce que dans la prise bu ñuy jëlee affaire bi en charge pour man am na loo xamante ne tey war nañ ko jàngat quoi war nañ ko jàngat c'est les cas graves et les cas graves nous posent problème parce que nous tout simplement on n'a pas tout le dispositif e partout ailleurs te ñii ñi xamul sax dañuy feebar boo leen xoolee les personnes âgées qui décèdent entre personnes âgées xam nañ ko boobu pour bu jóg dem hôpital rek problème la mm-hmm. c'est pas ah, la faute forcément du gouvernement c'est même pas peut-être la faute du gouvernement. Sur les décès, on a eu combien de cas graves? boo xoolee moi ce qui commence à m'inquiéter. sur les décès on a eu combien de. cas non ndax am nañ cas grave ñuy delloosi. toutes les personnes qui sont décédées. waaw yoo xam dinañ leen delloosi. toutes les personnes qui sont décédées. c'est là qu'il y a un problème sur la communication toutes les personnes qui sont décédées. apparemment avec des maladies de comorbidité mm-hmm. ñoom ñëpp donc ça ah, information bu leer la lan lan moomu tiital c'est que dama gis que temps yi y a des gens qui ont 40 ans 43 ans 45 ans yuy décédé c'est des sujets quoi qu'on dise très jeunes mm-hmm. xool très jeunes mais ñoon covid bi la wala dañ am diabète dañ am hypertension bu est-ce que loolu dafay jox benn information bu am maanaa boo defee le rapport par rapport aux cinq personnes yu décédées sur la population sénégalaise Est-ce que par exemple on est de plus en plus nombreux et très jeunes à faire du diabète Est-ce qu'on est de plus en nombreux et très jeunes à faire ay yenn maladie de comorbidité parce que bu dee loolu on va vers une catastrophe mm. et fan fan fan laay réflexion yu gën a yu gën a mature mais pas là pour moi on a dépassé ça quoi euh, <laughs> non balaa question nga contribuer ñu avancer kon. ah dañu xaw a génn tuuti li en tout cas thème bi euh, DER pose parce que dinañ ci ñëwaat mais comme je te disais c'est intéressant waaw waaw d'accord waaw mais dama ne li nga posé woon bokk c'est mm-hmm. intéressant mais li nga posé woon parce que pour man fu ñu toll tey jii nii moom mooy li xew tey tey tey tey comme ni ñuy dundee mm-hmm. fu ñu jëm pour man bu ñu commencé delluwaat ginnaaw comment xam nga on a on a fait lu ñu war a def wala lële c'est important mais li ëpp solo mooy fi ñu nekk tey ak ñun li ñu constaté boo génnee si biti ak ni nit ñi commencé dund fan la ñu jëm je pense que question boobu moo ëpp solo est-ce que ñun. Hmm. am nañu am nañu doole dund ak ak feebar bi. parce que feebar bi pour man lu nombre bi di gën a bari décès yi di gën a bari. donc il faut pas se dire que par exemple si à à cinquante mille cas tu vas avoir plus de morts ah. tu vas avoir plus de mal. pour pour. parce que xaaral xaaral kii rek. ma eggale rek da ngay am plus de mal pour contenir maladie. et loolu commencé na am ñu bëri ñu ngi leen di faj ci seen biir kër yi. parce que état bi xam nga bu ñu nee cent soixante ñaata lii cent soixante dix sept la ñu am nga ne utiliser ne cent cinquante mooy utiliser nga lépp rek. Mm. fu mu nekk nii li ñu war a xam que li nga li ñu constaté mooy nit ñi. wax fa dëgg yàlla ñu si gën a bëri bàyyi nañ seen loxo. on a on a on nous a sorti un, un, un refrain apprendre à vivre avec la maladie les gens jël ko adapté ko. Mm-hmm. pas ñun du d'une façon philosophique ah ñoom dañ ko adopté rek brut mu ñëw noonu ñu adopté ko mooy que ok eh, gars yi te ñun ñëpp ay sénégalais lañ ku ne xam na ne ah non loolu moom la ñu constaté tey te ak constat bi fan la ñu jëm. pour man ñun ñëpp loolu daf ñu war a inter interpeller. Hmm. est-ce que est-ce que par exemple les les les les gels. Hmm. se raréfient. Hmm. bu ñu waxantee dëgg rek. l'utilisation non non moom non waaw utilisation non dama ne la un mois xam nga ñun fii dañoo mën a jëlaate mën a ambiance. bu bu bu bu yëre yi xewee ñun ñi ñëpp 90 pour cent moom la ñuy sol. gel yi dafa nekkoon benn affaire koo gis mi ngi ak gelam. de plus en plus. nit ñi yoratuñu gel. de plus en plus. jusqu'à preuve du contraire ay bët nekkul fii ci suufu menton masque bi nekkul du pour fii pour fii la on a ça ne sert plus à rien bi moom dootul pour sol c'est-à-dire que mënuñu constater loolu yëpp tey ji ni te taxawuñu ne fu ñu jëm est-ce que mën nañu dundee nii fii ak deux mois bu ñu continuer nii comme fu ñu jëm pour man loolu moo question au lieu de revenir trop en arrière. Mm-hmm. c'est xool on peut dans deux mois évaluer suñu mode de vie. est-ce que nous. on a am nañu force dem fii ak deux mois qu'est-ce que qu'est-ce qui risque. de se passer ici au Sénégal. man pour man loolu mooy question monsieur analyse boobu nag foofu la jëmoon s'il vous plaît monsieur Ba avant euh, suñu spécialiste di wax dama woon rappeler il y a quelques jours on discute ñu doon wax ci affaire Covid bi mhm. Charles on avait échangé sur ça maa ngi doon wax ne je ne pense pas que première arme bi pour lutter contre Covid bi mooy xaalis moi j'avais parlé de stratégie ensuite xaalis ah. c'est exactement ce qu'il est en train de dire je pense que li ko motivé woon j'avais dit que les pays riches sont à genoux donc c'est pas une question d'argent il y a quelque chose qui, qui, qui prend le dessus sur l'argent, en sachant que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. On ne peut pas aller sans argent. Ah, Mais fondamentalement, stratégie boobu moo am solo c'est ce que j'avais dit il y a quelques jours ici. Hmm. moom laa bëgg rappeler oh, euh, ah, expert yi muy vous avez tellement raison que. c'est-à-dire que la stratégie. commande c'est commande les moyens. Hmm. la stratégie commande les moyens c'est-à-dire soo soo defee sa plan stratégique ba pare. nga évaluer wala nga estimer le coût. bu boobaa nga dem wuti wuti mooy wuti lu mu méngool c'est-à-dire dafa am euh, monsieur Ba vous vous êtes des techniciens des de grands intellectuels vous êtes des chercheurs il y a xam nga lan moo dafa am un décalage entre le message bi nga xamante ni mm-hmm. moom la autorité yi di délivrer ak compréhension bi ci askan wi am la réalité sur le terrain tey mooy j'ai donné l'exemple de jeunes qui disent que par la force dañuy dem géej dañuy sangu ci sur la corniche tu vois les jeunes dañuy dem sport yi parce que effectivement c'est ce qu'ils ont envie de faire parce que dans leur compréhension vous nous da ngeen ñoo wax vivons avec vivre avec la maladie vivre avec la maladie ci sénégalais bi nga xamante ne tubaab du làkkam te ñi ci ëpp jànguñu tubaab mooy nañu dund ak feebar bi mooy feebar bi mu ngi fi let's go nit ñi dañuy toog ci tànganaay yi nit ñi dañuy toog ci jotaay yi nit ñi dañuy daw docteurs yi nit ñi dañuy daw sapeur pompier yi nit ñi dañuy joxoñ ñi feebar te nit ñi aussi man bugguma ko joxoñ suñu waa kër ci wàllu feebar bi bugguma ko cest pour man am na loo xamante ne romb nañ ko sénégalais yi ñu ngi góorgóorlu sax di xaw a takk masque ñu ngi dem nañ sax ba finalement en fait ils se disent en fait ci li ñu nekk li suñ société nekk dëggantaan yàlla baax na foofu lañ ko teg ci yàlla baax na lañ ko teg léegi pour man stratégie bi ñuy wax du stratégie forcément une stratégie médicale c'est une stratégie c'est yeneen acteur ñoo war a intervenir yu dul ay médecin non non si parce que médecin yi non fajkat yi wax nañ nit ñi raxasu leen takk leen masque def leen nangam def leen nangam non non may ma rek wa loolu wax nañ ko lool lu nit ñi lu nit ñi dugal seen bopp la tey fi nit ñi toll mooy li nit ñi war a d'accord mooy malal dafay feebar ruus na dem hôpital non ragal na dem hôpital mhm. parce que jàpp na ni bu duggee hôpital waa koñ bi dinañ ne mhm. dina fa jël daf fay jële feebar bi wala waa koñ bi dinañ ne mais mala lu mu wuti woon hôpital xanaa dafa pour man ci mais malal na dafa naturel malal non pour man lii lii nga xam naa engagement communautaire laa moo tax engagement communautaire mooy li ma bëgg a wax lan la ñuy wax ni engagement communautaire mooy yow Cheikh Oumar Guédiawaye bi nga dëkk en tant que député léegi mën ngeen toog waxtaan ak ñoom bajanu gox yi les acteurs communautaires loolu mooy lafa lafa lafa foofu lañ jëm la ñuy wax ak nit ñi on autour de ça en attendant ma lay joxaat parole s'il te plaît s'il te parce que dafa wax. engagement communautaire moo am solo. may ma gis ngeen non gis nga corona bi. xam nga xam nga dëkk bi. Mayel Charles après je te donne Pape Djibril wax ci corona bi. non moom bis bi ñu paree ah. ci suuf si la ci pare moom dafa mel ni foo foo la daas fanaanaloon. waa ñu dafa ragal dafa ragal ah, ah, lu ñu bëgg a defloo Sénégalais yi. xale yi Sénégalais yi c'est pas ay xale yu yaru dox yu xamul dara ko hmm. quand bien même que làkkuñu tubaab. Hmm. fokk ñu arrêté loolu. Euh, pourquoi il faut arrêter cette affaire là am na loo xamante ne quand dafay metti si yow. Hmm. nga nekk mbëbës moom mooy sa réalité. ku la ñëw wax coronavirus yow toppatawuloo coronavirus. ba mbëbës nga xam xam nga ku si nekk ghetto bu nga nekk mentalité boobu affaire bi digg loolu mooy sa réalité bu luy ñëw di la wax leneen talu loo loolu faut dire les choses mais faut pas ay acteur ak di demee ne non affaire bi xam trois mois amul dans le monde ay wala nit simplement boo xamante ne mun na toog trois mois bu dul prison mu nekk dans un emprisonnement dans une ville comme c'est pas psychologiquement nit mënu ko supporter léegi le gouvernement tam mënul toog di gars yi dañuy def lii def lii def lii même des charges des des charges des yëpp ay bi liggéey maintenant lépp fa problème sur la stratégie que l'on met en tout ce que l'on dit là on se rend compte qu'il y a eu 45 personnes qui sont décédées sur les 45 personnes loolu mooy noonu loolu pour cent des personnes ñu décédées ñoom ñëpp dañu amoon jabet ki am lii kii am lii ki am lii. ay tension ay nangam sànq. mais da ngay commencer da ngay commencer changer de fusil d'épaule. da ngay commencer changer est-ce que il faut faire une chimio prévention maanaam est-ce que tey di nga def ay prévention di xool ak nit yu mag yi dans certain âge IPRES a ngi fii ñii a ngi fii médecins yi nañu répondre si loolu kooku c'est au médecin de de de le mm. dire et ça c'est le comme ça ñu jox ay orientation pour que nos hôpitaux ne nous coûtent pour que cette maladie-là ne nous coûte pas cher. te boo xoolee lu muy luy xew nii actuellement 45 beaucoup de gens sont guéris. donc ça veut dire que cette maladie-là finalement elle nous pénètre mais on la on passe. yéen ñaar bu may dellu si pare leen ma réponse fu ñu jëm bii ñuy laajte ah, depuis sànq. ngeen yóbbu ñu fa. s'il vous plaît oh, par rapport aux personnes âgées mooy personnes yi nga xamante ni risque la. moo tax sànq ma laajte benn question Euh, situation bu grave ñaata ñoo ci dellusi hmm. wala ndax ku toll ci situation bu grave rek da ngay faatu. wala ndax ku feebar benn xeetu feebar bi maladie sous-jacente boo ko amee ndax bu la dalee rek da ngay feebar da ngay faatu wala déet. Euh, ko mu leer. mooy ndax tey ci. docteur euh, ñi faatu ñi faatu ñaata nit lañu ñoo ci ñoo ci nekkoon. ñoo ci ñoo ci eggoon situation bu grave dellu si mm. ñu dellu si leen est-ce que la stratégie à ce niveau benn ndax ndax am na solo leneen li nga xamante ni aussi bëgg naa ko wax mooy une cartographie cartographie par rapport ak ñi nga xamante ni dañu nekk ay personnes à risque ci xale yi ci mag ñi ci jigéen ñi te loolu je fais allusion aux autres pathologies yi nga xamante ni moo feesoon réew mi kàpp mm. dans toutes les régions ak dispositif bi ñu am ci centre de traitement yi est-ce que parce que gisoon nañ aussi encore on, on est obligé de le citer déclaration bi professeur Seydi defoon bi mu demee Ziguinchor et ça avait vraiment amené une petite polémique boo xamante ni peut-être que c'était le technicien qui parlait et il n'intégrait pas certains éléments de langage du politiquement correct mhm. donc loolu aussi je pense que c'est c'est c'est bon à c'est beneen bi mooy c'est c'est c'est très bien qu'on ait le conseiller pour revenir sur la stratégie mais c'est encore mieux voilà dafa am solo loolu ñu am conseiller ministre bi c'est comme si on avait le ministre parce que nee na il assiste euh, à toutes les euh, réunions stratégiques mais génie sanitaire aussi dafa am solo par rapport ak même sunu sujet bi nga xamante ni moom la ñu abordé. Mhm. ce problème n'est pas que médical wax nañ ko ba saa alors que génie sanitaire dafa nekk au confluence entre la santé la sécurité l'environnement. mm te ñun loolu la ñu soxla fi mu ne. c'est-à-dire que est-ce que la stratégie a évolué dynamique wala ndax boobu ba tey dafa statique. der dama lay féliciter bu baax saa boo xëyee posté li ministère de la santé di génn ci communiqué. mais combien de gens le faisaient au départ te gisatoo ko léegi. il n'en parle plus alors que 10 heures bu jotaan rek dafay mel ni délibération bat. est-ce qu'on a évolué dans la communication est-ce qu'on a euh, euh, euh apprécié feedback bi nga xamante ni am nañ ko. ak tey ji fi feebar bi toll tey parce que au départ ñëpp li ñu doon xaar mooy lan ndax am nañ kaa importé mhm. tey amaat nañ kaa ñoo ngi amaat kaa importé et dafa mel ni ça choque plus mhm. te ba moytuwul bu ñu tijjee aéroport yi xëy na day day yokk day mhm. yokk te ñun euh, wax dëgg fa yàlla avant ñuy am kaa importé ñi ñu loon fii c'était le débat mooy le dispositif dans les aéroports on en avait tellement parlé et le gars qui le monsieur qui représentait le ministère de la santé nous rassurer tellement que ñun dans nos rêves les plus les plus osés mënuñu woon xalaat ne dinañ am cas boo xamante ni dina jóge ci réew mu mu am surtout Italie à l'époque qui en ébullition ñëw dugg tranquillement dem dëkkam ba mu law donc man li may laajte mooy tey aussi bien au niveau du ministère la stratégie nan la évoluer ak fi ñu toll nii nan lañ koy apprécier mais génie sanitaire bi surtout comme le malade comme aujourd'hui la maladie elle est là on n'en parle plus et il nous il nous faut reprendre la création de richesse nan la ñuy développer une résilience résilience du dara lu dul capacité d'adaptation <laughs> capa loolu moom mënta ne waaw capacité d'adaptation boobu moo tax ma ne bu bu fekkoon ne effectivement <laughs> on était prêt psychologiquement politiquement à vivre avec le virus le deux kenn du ñibbisi dañuy jàngi absolument parce que am na médecin yu ñu testé ñu positif est-ce que tey ji dafa tax ñu tëj centre de santé yi eh. tey jii bu ñu testé woon ay journalistes yu ñu positif est-ce que day tax ñu ne tas xabaar dootul moo tax dafa am yoo xam c'est antinomique il faut que l'on sache ce que l'on veut est-ce qu'on a les moyens de vivre avec le virus est-ce qu'on est prêt psychologiquement politiquement à vivre avec le virus d'autant plus que souvent dañuy gis ne ñi la koy sant ñooy njëkk a incarner la panique dans le discours et ça ça pose problème à mon sens Saliou Saliou jëlal merci Djibi kontaan naa trop waaw non ni mu libalee. bul fàtte kii respirateur yi. respirateur yi waaw xam nga respirateur yi dama lay wax ne la dafa am plan d'amélioration des urgences depuis les assises nationales yoo xam ne dañu ko wax waxoon ne dañu war a liggéey sur les urgences et les réanimations loolu dafa amoon benn benn benn plan ñu ciblé sept régions yoo xamante ne bi bu ci nekk waroon nañu am taxawaay yooyu ci ci foofu donc loolu tey mën nañu ne Kaolack Kaffrine Fatick Diourbel Louga Saint-Louis yooyu yëpp. am na ay bagages yu fa nekk yoo xam ne dans nos urgences war na mën a jël yenn cas yi te booy seet dëkk yooyu amagul sax yenn cas grave yi donc tey Touba ak Dakar ñoo gën a nekk suñu problème par rapport à épicentre bi mu nekk ak li fi nekk ci ay nit. Mhm. mais booy seet Touba barki démb rek tijji nañu xam nga on euh, le président euh, dafa doon def benn R plus 5 ci biir hôpital Matlaboul Fawzeyni mhm. léegi bâtiment bi yeggagul mais dañu jël R plus 2 yi pare. ak fond 6 y' a 104 lits tey départ nañ foofu et on aura foofu au minimum 7 respirateurs yoo xam ne dina fa nekk donc ce qui implique que dinañu aider sur les cas graves. rawatina nag 50 nouveaux aussi qui sont arrivés. voilà donc ak euh, dalal jàmm. on a quelques respirateurs respirateurs de nos de de nos polytechniciens. Ah yooyu est-ce que gars yi ko. non non on a des respirateurs actuellement kañ da nga naan 23 cas graves la ñu war a am une vingtaine et quelques. ma ñëw si ji bi. Gibi da nga wax ci ñi nga xamante ne bii. nekkoon nañ cas grave est-ce que am na ñu ci récupérer. ñaata lañ ci loolu pour te dire que mën na am ñu récupérer ci nit. mais ku ci dem rek comorbidité bi nga doon wax moom moo lay yóbbu daanaka parce que da ngay am diabète wala nga am tension wala ngay def dialyse la preuve léegi dañu xalaat sax ni centre de de traitement yépp yóbbu nañ fa ay appareil de dialyse yoo xam ne mm. pour bu ñu tombeek am ma maladie des reins ñu mën la assister ci loolu. on l'a fait dans les centres de de trai de traitement. maintenant nag comme on dit am na ci loo xam ne secret médical la médecin moo ko mën a wax. man mënuma koo wax te duma ko wax beneen bi ci topp mooy tey su professeur Cissé di ñëwoon mën na la ne am na ñett yu ma récupéré wala deux yu ma récupéré wala quatre yu ma récupéré pour être honnête ak moi-même bon c'est cinquante pour cent ou bien professeur Fat Samba ou bien quelqu'un qui travaille dans le truc nous aussi en tant que journaliste waaw non yéen mën nañ leen filer des infos mais man en tant que responsable am na loo xam ne Djibi le taux de guérison est à 63 le taux kii bi ngay à 50 waaw mais si le taux moom j'ai le taux et tout maa ngi ñëw sur fu ñu jëm comme ni Bouba doon wax dama leen boole kii bi Bouba xam nga fan la jëm hmm. ci ce que ministre est en de faire avec toutes les couches de ce pays hmm. muy ñu dem fer l'engagement communautaire hmm. suñu tëjee dëkk bi confiné ko coow am wax naa leen ko à l'entame de mes propos ñu ko tëjee coow am muy man mi sax bala may dawal 10 jours dinaa woo sawaay na ko ndax ndax yoroo 5000 muy benn ñu ne léegi nu ñuy def ñu ne léegi dañuy jël dans toutes les régions li ñuy njëkk def mooy suñu ay nit d'abord d'abord les médecins chefs de région les médecins chefs de district qui ont l'habitude di liggéey ak bàjjenu gox yi di liggéey ak acteurs communautaires yi ñoo ñu ne ñu njëkk jël kii bi en charge dem parce que ñoom population yi xam nañ leen mm-hmm. léegi nag ñu wàccaat nag si les porteurs de voix malal amal na njariñ dëkk bi parce que porteur de voix la bu demee Géejawaay su taxawee dinañ ko déglu moom it ak ay nitam député bi ak keneen Pape Djibril am na foo xam ne boo waxee ñu ne la Pape Djibril Pape Djibril la ñu fan wala ñu ne la Amadou Ba lañ bëgg donc loolu mooy ñi nga xam ne dañu war a wax tout tous les religieux recevoir nañu association des islamistes ñëpp ministre toog na waxtaan ak ñoom hmm. ce que vous depuis le 2 ici c'est extraordinaire peut-être peut-être peut-être nag booy wuti te am na loo xam ne doo mën a toog seetaan télé wala da nga koy romb gis xeex corona et tout ça là engagement communautaire boobu nag. moom la ñu dëgmal. bëgg ko te fas yéene cee dem. parce que sénégalais yi. Mm. déjà muy sama boor di boor keneen keneen keneen tey ñu déconfiné semi déconfinement laa ko tollee nga ñëw ci corniche bi man fi lay jaar des fois. doo gis ku takk masque. c'est vrai mais malal. c'est vrai. alkaati bi rek moo mën wax nit ki takkal masque mais Charles tey bu romboon ku takkul masque wax ko ko mais mu xeex moom. Mm-hmm. te da gis ay magum jëm. yoo xamante ay magum jëm xam da yor oto oto otoom. yor 4 4 20 millions. takkul masque. mais dëgg la ah, mais koy wax nga leen feebar baa ngi fi statut. mais mais mais mais mais mais doguma la. mais moom laay wax nii. xam nga bu ma nee fan la ñu jëm. pour man évaluation beeg yooyu yëpp benn affaire. xam nga lu am solo Charles man bu ma duggee ci régie bii fii may liggéey. waaw ñi may seetaan ñi may seetaan billaahi wallaahi mm. taala bu ma dugg see fekk nit mu sol kii dama lay dàq ci bi oui oui c'est-à-dire dafa am yoo xam ne comme c'est vrai comme doole amul mm. stratégie matul waaw saay ful la boo xëy stratégie personnelle démb ah? demb demb oui yónni naa équipe si Pape Djibi oui pour ñu filmer ma Pape bi mu wax ni ñu mu wax rek simplement ci affaire u gaafal corona duma daw kër doctor oui ni ma ko defee ak moom noonu laa ko defee ak Balla Gaye defe ko ak ñeneen ba pare liggéey ci effectivement ak waa SNEPS mhm. parce que bugguma ëllëg parce que buguma ëllëg jël responsabilité wax loo xamante ne day indi faille ci communication bi parce que pour non c'est important parce que pour man dama lay timing xoolal Charles Charles baal ma rek ça demande l'engagement de am na faut nañu mais Charles si c'est pas bon ñun leen lañ am on s'ouvre xam nga nit ñi on croiser les bras donc on s'ouvre on s'ouvre ñun dañu ne ñëw leen ku am xalaatam na ñëw daal waaw quand j'ai parlé du port du masque mhm. fii la avant que le ministre ne vienne mhm. ministre ñëw na ma wax ko fii mhm. le confinement mobile le confinement individuel mobile que je tiens de <laughs> Bakar Dia individuel mobile que je tiens du docteur Bakar Dia parce que dañ ko gëstu gën ko gëstu surtout. quand il y a eu Pape Diop. mais confinement mobile mooy lan. moi je ne comprends pas ce concept. non parce que dafa am char. mooy li nga def nii confinement mobile Charles fii Charles Faye mii doguma la de Charles Faye bii. Hmm. dama koy gis tous les jours. Hmm. confinement mobile la def man hmm. Boubacar Ndour. confinement mobile la def suñu waay am na yoo xam ne. théoriser ko fii. dafa am nit ñi ñoo war a jël seen ay responsabilités. dafa am loo xamante ne. si début ba nga kay réussir wala fa nga kay raté. Mm. parce que buñ koy expliquer man amul lu ma waxul. la première chose bu ñuy wax chloroquine donnant raison fii lañ ma fi descendre donnant raison à Raoult fort heureusement professeur Seydi je prends sur moi la responsabilité d'administrer moo ko fi wax fi ce qui s'est passé dafa am lu mais dafa am lu ñu raté. Mm-hmm. pour man on perd du temps. Mm. 90 pour cent de Sénégalais bu ñu porté woon le masque obligatoire en mars waxatuñu Covid tey. obligatoire waaw on l'a rate ok maintenant on on revient pas sur ça. par contre on constate que de plus en plus maladie ñu ngi ñëw parce que jaxasoo bi am. am na te gars yi seen yoon. léegi ñooñu bu ñu ñëwee si ñooñu di ñëw. suñu problème yëpp mooy information nit ki bu feebaree entre moment bu mu koy déclarer lan la yor comme jàngoro lu dul Covid. loolu mooy suñu problématique. te loolu est-ce que docteurs yi mun nañ toog bay ma rek di honorable député est-ce que mun nañ toog ñu ne personnes âgées yi bu ñu leen joxee euh, maanaam zinc wala ñu jox leen maanaam chloroquine wala ñu jox leen lii est-ce que feebar bi di ngeen si mucc maanaam bu ñëwee tam dina fa daje ak loo xamante ne du fa mun a développer mooy prévention mooy prophylaxie bi mu doon wax ñu xool ñu jéem a xool ut leneen mais bu gënee sénégalais yi nii léegi tey nii pendant trois mois quatre mois vous allez porter le masque de manière qui mais c'est difficile. Hmm. dans un pays où il y a mais ñu ngi laaj fu ñu jëm donc Amadou Ba ci yow laay dellu si est-ce que bu dee dañuy jàngat euh, chiffres yi nga ñu indil bu ñuy comparé woo ak États-Unis c'est vrai que États-Unis bu ñu nee sax 100000 morts mais rapporté à une population de 3 plus de 300 330 millions d'habitants millions est-ce que ñun Sénégal bu ñu ne bu ñu ne chaque jour ñu compter 100 yu bees weer wu nekk kon ñu am 3000 feebar bi dafa reculer wala dafa avancer. gis nga DER. fu ci jëm voilà gis nga feebar bi bi mu commencé dugg Sénégal rek laa ne woon bés boo xamante ne bi enregistré un seul cas communautaire ça sera extrêmement difficile pour pour pour nous gérer ko aujourd'hui soo xoolee les cas communautaires day évoluer presque crescendo en hausse te imaginez cas communautaire bu nekk mën na créer d'autres cas contacts par exemple cas bu nekk mën na indi vingt cinq yeneen donc quand est-ce que la nuy mën a stopper véritablement les cas de contamination à ce rythme-là c'est là où j'ai dit je l'avais dit mmh. le confinement était irréaliste irréalisable voire même dangereux mais heureusement demuñu foofu ci confinement total bi mais li Charles wax c'est important c'est-à-dire faire un confinement mobile c'est-à-dire accepter de porter les masques accepter également de faire les mesures barrières mais yooyu pour nga def ko il faudrait véritablement une bonne communication qui permet justement à la communauté aux individus d'avoir un changement de comportement positif. communiqué nañ ñoo kenn boo ko mënee boo ko mënoon waxee wala wax nañoo nit ñi ba sonn. non nit ñi nit ñi ku ne surtout le changement de comportement. waaw changement de comportement wax nañu ba sonn. dafa ndànk rek. déglu leen ko après honorable député ma jeexalee ci yow. kooku loolu laa doon wax léegi les mesures les les mesures barrières. Uh-huh. mais les mesures barrières rek individuelles. dafa doyul. il faudrait également. que l'État envisage et ça dafa raté le coche dès le départ gis nga bi nga xamante ne bii rek amoon nañ les cartes communautaires wala yu mel noonu foo ko identifier rek nga def la cartographie am na ku ko wax sànq à partir d'une cartographie sincère on pourrait faire des interventions de choc limiter foofu le cas avancé. mais est-ce qu'on a les moyens de ah, faire cette cartographie mais si. surtout sincère. non si. le ministère de la santé dispose de services spécialisés. mais Amadou lan moo ñu may ñu toog dans vingt deux vingt trois localités yoo xam ne ñii un lañu am ñii trois. ñii deux ñii benn dama lay laaj rek. lan moo lan moo ñu may loolu. kan lan moo ñu may tey nga dem tey nga dugg ay foo ay dëkk yoo xam ne benn cas lañ am. gis nga foo foo ñi am ñetti cas te boobu yëpp duré na depuis depuis. benn benn ren foo nga toog am ñoo xam ne am nañ amuñu cas depuis deux mois. ba ba soog ko am léegi. foo dem ba am fa benn cas lan moo ñu ko may. maa ngi lay dama ne fépp foo am fa benn cas. et ça je le dis sous le contrôle de tout le monde. cas boobu lañu gis mais il y a des cas yoo xamante ni qui tournent qui gravitent autour. ok eh, honorable déglu leen honorable xam nga le moom problème c'est c'est c'est c'est le le problème xam nga boobu benn question. on on de faire une évaluation. def nañu defuñu. Mm-hmm. le problème c'est que def def nañu defuñu lan la ñu war a def. exactement. fenn laa d'accord ak Amadou Ba on a communiqué. Mm. communiqué def nañu banderole. man man fi may fi ma nekk sama observatoire le Revocap benn réseau boo xam ne ñëw nañu mais y a l'honorable député Marème Sodé Ndiaye qui est député moom rek laa gis mu engagé ànd communauté wàcc. barak man mi dem naa biir marché di distribuer li bi wax ma am dem ñu jox benn waaye mu ne ñu waaye solu ma. loolu la ma la ma wax carrément mun waaye grand may ma waaye dem solu soluma <laughs> on a fait des affiches partout dans la rue. Mmh. tous les médias bind nañu resté chez vous. ak ñu génn seen ci mbedd bi. ak ñi feebar amul nit wax nañ ko. wax nañ ko tous les médias. wax nañ ko si on dit qu'on n'a pas communiqué. non on a communiqué. est-ce que dans l'histoire du Sénégal am na communication. foog naa ne man ci laa gis ay sëriñ sax ñoo xam ne boo ñëwee dugg seen biir seen biir kër. dañu leen ne raxasul ba pare. toogal fële. on a communiqué. yooyu de dans la communication et dans la stratégie dañu egg ba moment ñu waxtaan wax dëgg ci la état bi amatul moyen jël yenn yi en charge parce que ñii dañ leen yóbbuwoon ay hôtel ñii dañ leen yóbbuwoon ay feneen yéen ay foofu loolu def dépassé nañ ko. li ñu war a xool. il faut d'abord Cheikh Omar concentrer sur l'information et la communication. Exactement. voilà oui l'information. et la communication. je suis d'accord xam yëpp c'est bien on, on porte à l'endroit du public une information. on a beaucoup informé on a communiqué. mais on n'a pas mm. bien informé. non tu as a l'information avec les supports. mais y a la communication en allant dans les marchés en partant en distribuant les. on ne peut pas nier dans cette histoire qu'il y a pas de communication. mais mais moom ñu ngi may seetaan. dama dugg ci benn magasin bu sama benn xarit am. amul fenn dugg ci magasin bi. kenn solal ma non ma tenir discours bi parce que noonu la ma ko yàlla bindee. Mhm. mais je me suis retrouvé ridicule. comme benn gaan bu ridicule mais les gens ils mhm. te doog man te loolu responsabilité personnelle la. wax ko dëgg yàlla. mais nag bu ma foofu laay daanalee buuba xam nga mon inquiétude c' est pas ça xam nga lan on est en train d' ouvrir. Mhm. xam moo nan moo ñu nar a bu ñu amul stratégie bu baax pour gérer affaire bi. di nga bëgg génn tëkk bi tukki. dëkk bi ngay dem. merci lii la dugg fu ñu jëm. xam nga loolu mooy sama inquiétude. on est en train de parler de trucs mais di nga bëgg a dem France ñu test la ne nañ la fa téye 14 jours yà yàqal la sa nga war a jënd billet. war a jël sa bopp en charge ñu war la fa téye 14 jours wala ñun la mënoo dugg ci dëkk bi parce que sa dëkk le taux de de de de d'infection dafa yokk. waaw fu ñu jëm. ça va ça va impacter notre économie. parce que li ñu doon bañ ci njalbeen confiné suñu bopp. ba régler problème bi. ñeneen ñi duñ ñu ko nangul. absolument hmm. foofu laay foofu mooy sama tiitaange. ñeneen ñi duñ ñu ko nangul c'est-à-dire au lieu de nous régler le problème les autres vont nous obliger de régler le problème en restant chez nous. waaw man li ma bëggoon wax foofu mooy euh, Cheikh Omar wax na ko euh, sur l'information d'abord parce que ñun on a beaucoup suivi l'information au départ il y avait une offensive même dans la communication ensuite parce que communication de crise ngay dugg su booba loolu aussi. à un moment donné on a voulu que ñëpp dugg ci te xayma bi dafa am solo ci wàllu communication mooy natt bi li nga wax léegi buuba loolu natt communication bi mooy tax ñu am feedback boobu pour xam lan moo tax mu am poste de résistance yooyu mooy le problème communicationnel qu'il faut régler hmm. léegi nag nga doog a dem nag ci sensibilisation. moo tax ma ne il faut aussi foofu aussi ñu def ci attention parce que gis naa ñoo xamante ni effectivement dañuy dugg ci ay marché jëkkati sa loxo di joxe ay masque loxo bi ci boppam ngay jël masque yi di distribuer nii. ci biir marché y en a beaucoup aussi. qui ont fait yow yow nga ko xam. Mhm. est-ce que c'est pas un comportement. de nous-mêmes. de notre comportement. non xam nga xam nga crise moom xam nga je suis d'accord xam nga crise xam nga crise dafay révéler xam nga crise aussi dafay révéler mhm. ay manquement yoo xam dañ ko am mais loolu yëpp ki nga xamante ni moom mooy dégager ses stratégies daf koy tenir en compte mhm. yaa ngi dégg daf koy tenir en compte mais li ma bëgg a wax pour revenir par rapport ak stratégie bi mooy évaluation bi nga xamante ni war na ci am rigoureusement pour ñu xam nan la ñuy defee un mm. bon qualitatif man loolu moo nekkoon sama préoccupation mm. mooy est-ce que on évalue pour mën a xool nan la ñuy def ba parce que ma kii euh, Salif Faye daf wax na ko léegi mm. ne fi ñu jëm ñooy suñu problème si communauté bi ñu jëm si si mais mais Pape Djibril ah. ñun ñooy suñu problème déggoo ma la boo yorul casquette ministre yoroo casquette euh, docteur nga nekk ab sénégalais gis sa ay moroomu sénégalais nga ñëw fekk leen ñu taxaw ñu mag diis nga ñëw jël initiative parce que da nga bëgg a participer nga gis wax yi la gars yi di wax. non ah, gars yi dañ lay wax que ni. mais buuba mais c'est-à-dire que eh, léegi ñun. pourquoi ñun waruñu remettre. en question mais à partir de ce moment. mais à partir de ce moment. parce que il va pas me donner mais attends mais buuba. waaw communication c'est pas seulement toog di wax. Mhm. buuba quand tu déclares boo waxee guerre. Mhm. avion gis nga hélicoptère yi bu ñu doon romb fii si kaw ba tëkk. policiers yi taxaw si biti guerre la non mhm. tu te mets en situation de guerre on parlait de géographie militaire ça veut dire on ne dit pas les mots et on tente ak des concept la si biir mhm. bu taxee affaire bi dafa amoon moment boo xamante ne loolu laa wax on perd du temps fou mhm. dañu raté benn départ psychologique benn de bu kii tey fu ñu toll nii demain boo bu newoon demain on va prendre trente mille wala cinquante mille personnes qui peut me dire quel sera le ratio de positif est-ce qu'on est pour cent vingt pour cent et même projection boobu boo ko defee nga def ko léegi ah, nga dem di ko yokk quelle est la réponse médicale tout de suite adéquate est-ce que am nga ko amuloo ko donc à partir de ce moment là anamoo ngay commencer di dóor ba mu saf-saf mais comme raté nga loolu il faut que nga inverser affaire bi pour ne pas arriver à ce que le député a dit mooy que dans 15 jours wala dans 3 semaines ñëpp a mën voyager si tubaab bi ñun ñu bëgg a dem gars yi leen déet vous ne pouvez pas venir on pourrait aller vers ça ah on aussi leneen li aussi bëgg naa ko laaj spécialiste yi mooy la recherche dans toute cette affaire là parce que ñeneen ñi ne vivons avec le virus yëpp. ñoom dañu foog ne. gagné nañ ci assez d'expérience. pour mën koo wër ndombo. Mhm. kii bi virus bi. mais aussi def nañ ci jéego yoo xamante ni jàpp nañ ne le pire est derrière eux. Euh, et pas devant nous mais ñun fii. ba tey parce que bu fekkee ne day day yokk. <coughs> ñi ñuy testé di gën a yokk. mais jusqu'à quand kañ la ñuy wax ne atteindre nañ pic bi pour delluwaat c'est-à-dire que <laughs> tontu ma ko tontu ma tëj. Euh, tontu bi daal mooy. Hmm. au niveau de la stratégie nationale. Hmm. waaw. li jiitu mooy. Hmm. nanu banaliser d'abord la maladie. banaliser la maladie. c'est-à-dire ça ça trop dafa mhm. dafa traumatiser lu bari nit ñi. Mhm. et la communication du ministère a beaucoup contribué justement à effrayer la la population soo xoolee presque ay kàgg bon gis gis ngeen par exemple communication bi ni ni ko libalee. ah mais il faut a. Ah, spécifique non mais aujourd'hui a spécifique quand même. par waxee il faut apprendre vivre par exemple malal li mu wax sànq. on n'a pas dit il faut apprendre à vivre avec la mais il faut apprendre à vivre avec le virus. Le virus à vivre avec le virus c'est comme euh, maladie par exemple qui ressemble un peu à euh, au Covid-19 la gis nga soo jëloon par exemple la tuberculose le bacille de Koch les quatre-vingt-quinze pour cent des populations sont des porteurs sains yéen ngi fàttaliku vaccin yi ñu doon def. BCG BCG. c'était juste pour vérifier si votre organisme est déjà en contact avec le germe ou pas une fois que votre organisme est en contact avec le germe. Mm. nous fexe en sorte que. votre organisme ne ne s'affaiblit pas. Mm. est-ce que par exemple le covid bi dañuy naan ça c'est la comorbidité. Mm-hmm. et c'est l'affaiblissement de l'organisme. quand l'organisme est faible système défensif est faible. c'est un terrain favorable au Covid-19. Oui. cela veut dire quoi cela veut dire que d'ailleurs même les cliniciens wax nañu. mooy lan. Mm-hmm. su fekkente ne léegi tu en contact avec le germe su fekkente ne sa sa organise sa yaram est suffisamment résistant mën nga am même un traitement naturel sans pour autant d'ailleurs même gis nga les cliniciens pour ne pas citer encore des noms dan lay naan ya des cas de guérison yoo xamante ni ils n'ont reçu aucun traitement mm. c'est un traitement naturel c'est parce que simplement l'organisme a été fortifié bi ñu ko fortifié vraiment bon si aussi suñu la ne il faut vivre donc avec le virus mhm. c'est simplement avoir un organisme fort qui puisse résister justement au, virus d'ailleurs euh, si si vous vous rappelez Moussa Thior am na fu mu ko waxee mu ne il faut libérer wow, le virus wow. pour permettre aux organismes des uns et des autres pour mu familiariser wu avec okay. Euh, le virus. ok euh, ci yow laay daane. merci beaucoup mais. bu waxee ne ñun ko suñ communication baaxul. <laughs> man man sama man man man man damay daal parce que dama ne ñun amatuñu lu ñu wax. Hmm. booy seet sax tey. Hmm. amul ku xamul feebar bi ci réew mi. keneen mënu fee indi beneen mesure barrière bu dul mesure barrière bi moom bi bi bi yëpp di def. Hmm. tout le monde. nga bokk même chose bu ñuy def. takk masque maa ngi ñëw daan ba pare non maa ngi ñëw takk masque. li ngay li ngay wax li ngay wax garaaw na de. da ngeen mel ni ku daan ba pare. ku daan. ku daan ba pare. non mais non. attends ñun on est debout on est debout on est debout il faut pas xam nga xam nga lan la on est debout debout xam nga mooy lan xam nañ li ñuy def xam nañ fan lañ jëm te ragaluñ ko aussi hmm. mais nag dañu am ñu ñu ci war a jàppale. mooy la population. ça c'est vrai nan la ñuy jàppale. mooy ñu ànd ak ñun sur l' communautaire. l' communautaire mooy li ma wax léegi ñun ci loolu lañ nekk. tey jii le médecin chef de région de Dakar. Hmm. qui gère qui nga xam ne am na presque 157 postes de santé. am na presque 16 districts. ak toutes les régions kenn ku nekk li nga englobé ku nekk da ngay jóg ñu woowi les bàjjenu ko woo les acteurs communautaires woo les porteur de voix woo ñi nga xam ne tey ci seen mat Youssou Ndour li nga xam ne daf koy def ñëw taxaw ñu ñëpp ñu ànd pour ne lii la am na ñoo xam ne maa ngi ñëw waaye bàyyi ma respect waaye am noppi dama ne yow yow système bee def nii nga mel dama bëgg nga déglu ma yow am nga xam naa système bi bàyyi stratégie yooyu yëpp wàllu tubaab la dañ ne li ñuy def ba yëf yi jeex dañu nan la ñuy def ba yëf yi jeex loolu la ñu wax ay stratégie yooyu paa bi toog këram xamuñu ne stratégie paa bi toog këram leen la xam nan la ñuy def ba feebar bi dem nañu respecté affaire yi foog suñu xale yi ñooy génn ci mbedd mi jëli feebar bi jox ko mag ñi am mobilité. ay